taxaw ak nga xam ne ne moom mooy euh, Babacar Bongo moom mi nga xam ne ne tey loo mënti xew la ci Sénégal bu ci teewul rek xamal ne sa euh, sa xew niil la donc ñu daje moom fii ci inauguration Forever Young ñu ngi lay nuyu bu maa ngi lay fay sama mag ju jigéen sama sista di la naan la yàlla defal jàmm ci barki alxuraan ñu fekk la fi ci inauguration wu Forever Young bu Zeyna ñu bëggoon xam rek ban relation nga am moom ak ban relation nga am ak ki nga xam ne aussi moom mooy waajuram bu jigéen di Viviane Zeyna Zeyna Ndour sama xarit la lépp lu mu xew la daf may woo yaayam lépp lu mu xew la daf may woo ba barki Dembo Ndiaye ba muy tëgg anniversaire am bii mu doon nag ku am jom nee naa ko nag réew mi ñu ne boo nekkee xale bëgg am jom nga am fula am fayda am personnalité am ambition yàlla lay teral ba pare moom xale bu am jom la bu xoolee ci yaayam ji yaayam am na fula am na personnalité papam am na fula am na personnalité ay famille papam dañoo am fula am personnalité famille yaayam am fula am personnalité ba pare mu doon xale nangoo liggéey am na jom am na ambition yii xale yi nekk nii ay maana la yaana ma la non non yooyu moom boo xoolee Sénégal ay affaire u liggéey lay dugal yi mi jaay ay produit yi muy jaay moom lay dugal te réew mi nag dañoo gaaw a sikkal nit am na fula am na personnalité te dana ngoon naa liggéey maa koy naanal nag yàlla na ko yàlla defal jàmm place bi fu ne ku ne du dugg ak a kër gay toj. waaye seen classe bi daa jeex seen classe boo nga maane wala léegi def ngeen jàmm ak ñun daal sénégalais ñun ngeen bëggoon jaxase suñu biir. ah man de xaw ma waaye man saa yi ma xëyee maa ngi tëgg Vénia Bongo saa yi mi ngi tëgg tëgg Mor saa yi xëyee mi ngi tëgg xaw ma nag wax fa dëgg yàlla man saay ma xëyee damay tëgg ma jugee fii léegi damay tëggi ji ay xew aw ma temps réew mi dafa xat ku sa doom dee nga juraat boo mën a posé xoolal nooy def baa nga xaru